aousubillah min asheytani irajim bismillahi rahmanirahimi wasalatu wasalaamu ala rasulillah wajal kalaami rasidan wa murshida wa fikrati nawwir wa xalbi arsida mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi nuyu ñëpp ñoo ngi jaare ñëpp ñoo ngi jaajëfal ñëpp di jiital ci nuyoo bi ak jaar bi cheikh Mouhamadul Muntaxa Mbakke di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér naka noonu it mbokk yi lañ koy ñaanalee kilifa diine yëpp waaye ku gis fii ñu taxawati sa xol dina sedd euh, di nga xam dëgg dëgg dëgg barab bii ñu taxaw ñu ni taxaw nag ci jumaayu Touba ci ndigal li nga xamante ni tey jii fu ab jullit nekk ci réew mi ak ci bitim réew rek dégg nga ko Cheikh Mouhamadul taxa Mbacké feddali ko maanaam mu jële ko ci ay way wayjuram yoo xamante ni ñoo fi daan jaar di ko taxawu saa su nekk mbokk yi ku gis lii nga xamante ni tey jii am na fii nga xamante ni tey ci jumaa ji saxool dina sedd bu baax a baax ci taxawaay bu rafet bi nga xamante ni murit yi nga xamante ni ñoo nekk fii ci biir réew mi ak ci bitim réew amal nañ ko jëmale ko ci li nga xamante ni mooy ndigal li sëriñ bi woote te ñu baaxoo ko woote saa su nekk waaye ndigal li nag mbokk yi ba tey di fàttali rek ne arxuraan ji nga xamante ni saa su nekk moom la ñuy soññee mbokk yi nga xamante ni ñoo nekk ci réew mi ak ci bitim réew fu ab murit nekk rek léeg-léeg bu ndigal amee ah sëriñ bi woote ko fépp fu ab murit nekk rek ñu taxaw ko fa bu baax a baax a baax a baax noonee dafa yaatu ba ci tey jii loolu it ñëwoon ci jamonoy Serigne Touba ci ni nga xamante ni Serigne Touba noonu la fonkee woon alxuraanul karim naka noonu it bépp xalifaam boo xamante ni jaar na fi daan feddali loolu bu baax a baax mu gën a leere ci Serigne Saliou mbake ci digle yi nga xamante ni daan na ko digle bu baax a baax a baax wàcc ba ci Cheikh Mouhamadul Amin Bara mbake wàcc it ba ci Serigne Cheikh Sidil Mokhtar Mbacké niki noonu Serigne Sidi kenn ku ne xam na ne bi mu fi teewee kenn ku ne xam na ne ndigal li mi ngi ko daan jaarale ci Serigne Mountakha Mbacké moom it ci aw làmmiñam mu ko daan yaatal bokk taalibe yëpp ba ñëpp daan ci jariñ te jii bi mu toogee xalifa feddali lii nga xamante ni mooy ndigalu Alxuraan ji nga xamante ne saa su nekk buñ demee ab diir dinañ ko woote ci ay bërëb bépp bërëb boo xamante ni rek bërëbu Serigne Touba la moo xam ci réew mi la wala ci bitim réew wala fépp foo xamante ni ab murit yaa nga fa rek ñu yandoo fa jàng li nga xamante ni mooy alxuraanul karim loolee tey ñëw ci Serigne Touba moom loo gi nga xamante ni suñu borom moom loo na ko alxuraan tam wax ko ci mu wér sëng muy màllakanil xuraanu tam likan yaddum mooy suñu borom moom loo na ko alxuraan gi ñu ñu jàngataat it bis bu mel nii bu amee maanaam mbooleem fu kër sëñ Tuubaa nekk ci réew mi ak ci bitim réew mi rek maanaam dañ fay yendoo jàng lii nga xamante ni mooy alxuraanul karim loolu it sëriñ bi wax ko muy wajal buyooti kullaha daa defal samay kër yëpp ñu doon jàkka loolu it wér na ci tey jii fépp foo xamante ne ab murit nekk na fa rek yendoo nga fa jàng li nga xamante ne mooy alxuraanul karim waaye ñu dellu si ci jumaa ji ngeen gis ne ginnaaw bi nga xamante ni jàng nañ li nga xamante ni mooy alxuraanul karim ba noppi waaye ñaanalaale Serigne Mountakha Mbacké suñu borom yàggal ko fi loolu te mu ànd ak wér ngeen dégg kàddu yooyu xam naa incha allahu rabbi kàddu gis ngeen noonu niñ ko jëlee incha allahu rabbi ku ko bëgg rek ko nga koo xaar ci Touba Vision incha allahu rabbi li leen la woon ci li nga xamante ni moom lañ leen jël see tey fii ci ndigal li nga xamante ni sëriñ bi woote na ko fii ci jumaa ji waaye it ndigal li la saree àdduna sépp tey jii ñu doon ko dundal xam naa incha allahu rabbi di rek tey lañ leen indiloon di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. mbokk yi ñoo ngi leen di jaajëfalaat bu baax a baax a baax ba tey ñoo ngi nii nag ci jumaa ji nga xamante ni jumaa ju tedd yoo xamante ni ku gis fi ñu taxawate rek xam ne am na lu rëy xewati na waaye ñu taxaw ak jëmm joo xamante ni amaana ku yàgg a topp nga xamante ni mooy jataay yu mel nii nga xamante ni. xalifa général mi ngi koy digle rek eh, dinañ ci miin jëmmam bu baax a baax a baax loolee nag li koy waral saa su nekk ku ne xam na ne eh, seen taxawaay bu am solo bi nga xamante ni moom lañ am ci wàllu alxuraan ci biir réew mi ak li biti réew mi ndax kenn ku ne xam na ne mbooleem fu jàngalekatu alxuraan nekk ci réew mi ak li génn réew mi comme niñ ko waxee rek moom mii di sëriñ xaali jaxate am na ci taxawaay bu am solo boo xamante ni daf koy taxaw waaye rawatina ci bis bi nga xamante ni tey jii sëriñ Muntaxa Mbàkke daf ko digal bépp jullit boo xamante ni da ngaa nekk ci réew mi ak ci bitim réew fu waaye nekk nga yendoo faa jàng li nga xamante ni mooy alxuraan ak sàkk sarax xam naa ne duñ guddal ndax day mel ni waxtu wi nii sëñ xaali euh, dañ ko dañu koo may rek waaye jot gi dëgg dëgg dëgg dëgg amu ko waaye sëñ xaali xanaa nga tënkal ñu rek ci seen taxawaay ci bi yu mel nii saa su nekk bu ñëwee asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen balu xaq di leen baal ñaan suñu borom boole ñu baal. Eh, di ñaanal sëriñ Tuubaa Cheikh Mouhamadul Mountakha suñu borom yokk aw fanam ak wéram gën koo kattanal ba liggéey lislaam bi nekk ci loxoom mu yóbbu ko fu kaw njort yëpp te ànd koog moom ci bàkkib sëriñ bi. Eh, li ci jiitu ni nga ko waxee bis bi ndigalal sëriñ bi la Cheikh Mouhamadul Mountakha ndigal loo xam ne daf ko yeesal jële ko ci ñi ko fi jiitu woon Euh, muy sëñ Tuubaa Cheikh Sidil Muxtaar sëñ Tuubaa Cheikh Mohamed Lamine euh, sëñ Tuubaa Cheikh Salih yàlla na suñu borom dolli seeni leer ak mbooleem njabootu sëñ Tuubaa gi yëpp euh, mu mel ne nii ñu ko miine di ko ni defee sëñ Tuubaa Cheikh Salih moo baaxoo woon di ko ni defe di baaxoo digal kilifay rabita bi ñaari yoon ci muy ci rajab ak ci muharram mhm. yoo xam ne daf ko mel ne mujj na ko saxal mhm. ak it xamee ne yëg na luy tax mu war koo santaane it mu def ko gannaawam it euh, kilifa yi lépp loo xam ne lu fi euh, ku jiitu sampoon la dañu koy saxal mu mel ni nag la cay euh, bu dee am lu yees mooy ca Cheikh Mouhamadou Lamine ba bii mu ñëwee ci loxoy sëriñ bi yàlla na yàgg yàlla na ci yàgg lool Cheikh Mouhamadou Lamine moo ko ci defoon muy jëwriñ moom moom Cheikh Mouhamadul Muntaqa muy jëwriñ ji waxtu nekk moom ngeen daan gis su yëgle bi jotee ñu dem ca këram mu yëgle ko turu sëriñ bi suñ tolloo ci waxtu wii mu dikk julli tisbaar yeewi mbooloo mi ba bii mu tàmbalee xat ci moom ak it ak bëggam ak yaatal ndax moom ci boppam sax euh, ay yoon sàkku nañu woyefal ko wax ne sëñ Mamor mi ak sëñ Basiru ñooy man may ñoom fu ñu nekk rek doy na sëkk dama bëgg ngeen xam ne yëf du man waaye sëñ Tuubaa la te ëppalewu ma leen ci loolu wax na ko ay yoon waaye ñoom it seenu xër ak yoon wi ni mu baaxoo ku nekk ñu jiitu la day gënal dalay lay gënal nga jiitu. kon loolu moo tax euh, yi ñu ko gis ñoom ñu wuutu ko ci it. noonu rek la. tey jii bi yëf nekkee ci loxoom it. mu soññeewaat ko yeesalaat ko euh, wanewaat ca bu baax a baax a baax itte tax kilifa yi wax ñu. gën a fulaalaat ñëw gi ci jumaa ji ak ci mboolem barab yi ak fu ñu ko daan defee ci biir ba bitim réew euh, gis nga sax bi mu bi bi accès te dajanteeg moom mu jàppoon a yëgle ab ruuj dafa ne loolu dafa mel ne tawfiixi suñu boroom la ndax yendoo liggéeyal sëriñ bi ci alxuraan ba bët set mhm. ñu jëm ci tool yi loolu moom tawfiix la mhm. tawfiix googee yàlla nag ko ci yàlla defal mhm. nu kawe na mu ko jorte kon incha allahu taala waxtu waa ngi jot soreetul eh, sëñ basirum sëñ abibu agsi na ñu ngi néggandiku sëñ maam moor nii xam naa ne waxtu ne mën naa agsi mm-hmm. ngir euh, bu ñu jullee tisbaar jàng xatmo bi euh, ñi nga xam ne ñi ko sëriñ bi santaane woon xéewal yi tamit mu mm-hmm. ngi ñëw gis ngeen ne ba fi toll nii téléphone baa ngi yëngatu mm-hmm. am na ñoo xam ne ñi ngi ci yoon wi di ñëw ñoom la ñuy negg niku ngir man leen a orienté euh, kon daal mel na ne alhamdulilah dëkk bi bi ñu xëyee yaakaar naa fu waaye jaar jaww ji jenn alxuraan la jumaa yëpp dañuy joxante mhm. mbooloo yi it ñenn ñu nekk fañ gën a jege dem nañ fa mhm. waaye teewul gis ngeen jumaa ji ni mel mhm. te ci biir réew mi ak bitim réew it ñëpp mel na ne ci noonu lañ ci maasee waa loolu moom alhamdulilah jëm mi dafa mel ne sëriñ bi ci boppam loolu mu wax ne xaaji <coughs> la dallaahi xat qudiyat suñu borom dafa faj aajoom lépp lu mu bëgg rek suñ borom tàggatal na ko ci jumtukaay yàlla def na euh, daara euh, gën naa am ak nosu mbooloo yi tënku nañu ci biir réew mi foo fi dem am na ku fa jiite xamees na ko jokkoon ak moom waxtu wu ndigalal sëriñ bi ñëwee jokkale ko day yomb lool euh, wet gu ne kenn ku ne wet gam ne saa boo ko jotalee rek mhm. la ca des lépp moom dana ko yaatal la ca war mhm. ni nga xamee ne dëkk bi fi mu toll nii mhm. euh, wet gu nekk am na ñu fa nekk ñoo xam ne ña nga fa di ko taxawu loolu moo waral ñun ñu ñëw fii ne su ñëpp maase woon ñëw fii kon da xat gi dana ëpp ñaareel bi sëriñ bi dafa bëgg mu yaatu kon loolu moo tax nosu gi moom ginnaaw fekkoon na mu am euh, ndax loolu mbirum diine la mbirum yoon wi la ndax bu bu ñu ko yëglee ci jéglewukaay yi ba njëkk ko it ñi nga xam ne ñoo yore njàng mi ci barab yi danañ leen ko yëgal waaye it ñi nga xam ne ñoo nekkal sëriñ bi ci barab yi it ñu ci bari danañ leen ko yëgal ngir kenn ku ci la nga ca war a taxawee nga taxawee ko ca jërëjëf macha allah mbokk yi jërëjëf sëriñ xaali ci kàddu yu matala yooyu waaye xam naa nii rek lañ koy wéyale ak yéen lépp loo xamante ni am na ci lii nga xamante ni mooy bërëb bu tedd bii ñu nekk tey ngeen gis ne noonu Serigne Khaly ni mu ko waxee macha allah ci seen taxawaay bu rafet bi nga xamante ni ràññeeku na ci képp koo xamante ni yaa ngi leen di topp macha allah ñu am taxawaay bu am solo boo xamante ku fi teew rek sa xool sedd na noonee lañ koy wéyee lépp loo xamante ni am na fi mel na ni incha allah rabi ci kanam tuuti dégg ngeen noonu Serigne Khaly wax nag ko Serigne bu dina egsi dina ay kàddu yu fi rot dinañ leen ko indil kon xam naa ne suuti ñu dikkaat ak yéen suñu yeneen di jataay